nettali bu yéeme xew-xew bu mag am na lu jiitu juddug yonent bi sallallahu alayhi wasallam tambaleeb nettali bi ni abrahat al ashram na doon jiite yemen gannaaw bu waxanteeg buur ba nekkoon xabasha gis na tabax ab egliis fale ci sonaa ca yemen mu ciy woo arab yi ñuy aj foofule bàyyi dem biñ doon dem Makka la nekkoon jubluwaayam nag mooy dëpp jënd ak njaay meeg commerce bi fële fa Makka yóbbu ko Yemen Abrahat gaaral na mbir mi buur ba nekkoon Éthiopie mu dëppook moom kontaan ci loolu mu daldi tabax nag ab église bu mag waaye kenn ci waa Quraysh jóge Makka ñëw na ci église boobu dali fay dem àll waaye fomp ko tamit ci miiru eglis boobu ngir mer ci li Abrahat def Abrahat tamit bi mu gisee loolu waa ji def mu daldi mer moomit it bu jéggi dayo waajal tamit ab armée ngir dem xeex ak waa Makka waaye tamit toj seen kaaba googule àndoon nag moom fukk ak ñett ci ay ñay bi ci gënoon mag ñu ko doon tuddee Mahmoud bañ demee nag ba jublu Makka jege Makka dajewuñu nag ak benn gox ci goxu arab yi lu dul xeex nañu ak ñoom waaye alak leen buñ demee ba jege Makka dox na ab weccoo ci kàddu diggante Abrahat ak abdul muttalib ibn hashim maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye seen weccoo ci kàddu mu ngi jeexe ci abrahat dali koy delloo gëlémam yi mu jëloon waaye nag mu bàyyee ko kaaba gi mu nekk mbiram abdul muttalib daldi digal góor ñi nekkoon makka ak xale yi ak jigéen ñi ñu daldi yéeg fële ca kaw montagne yi ngir mucc ci loru abrahat abrahat bi mu demee moom aki armeem ba yegg ab bereb buñ tuddee waadi muhassir foofu nag ñu daldi gis ay picc ay mbooloo wi mbooloo daldi leen jubli si picc bu nekk téye ab xeer bu ñu demee ba jub si leen sànni leen xeer ku ñu sànni xeer mu daldi sey waaye yaramam daldi wadd noonu ba ñu alku ñoom ñépp ab raxat daldi daw yaramam bi di yàpp gi di wadd mu daldi alku ci yoon bi loolu nag nepp ak kimtaan bu mag a mag nekk tamit ak ndimbal ci ñu dëkkee woon màkka ak xéewal bu mag ba nga xamante yàlla defal na ko waa loolu la suñu borom azza wa jal wax ci téere bi mu ne ndax gisuloo naka la sa borom def ak waa ñay wa ndax defut seen pexe ci neen mu yónnee ci ñoom ay picc nekk ay mbooloo wi mbooloo ñu leen di sànni ay xeer ya bàyyikoo safara ñu daldi leen def kom ngóot kom guub buñu lekk ba dara desetu ci